Uh, Nambikou Macky Sall njiiti réew bu Sénégal moo nekkoon avocat wu réewu Afrique yi ca assemblée générale ba mbootaayu xeet ya doon def ca réewum Amérique si du quotidien moo ñu ko xamal la solo yéen a kaay na ko kàddu yam fa yëkkati fa xam solo lool te la ca gën a fës mooy ne fa bëgg Afrique am liberté am lii yéen a kaay ne Macky fa wax jafe-jafe réewu Afrique yi boo la ci wax fan la ñu jaar ba saafara ko te mooy yéen na ko Macky fa wax bilan réewu Afrique ba pare nekk seen avocat ndax moo jiite mbootaayu réewu dépêche yéen a kaay ne sàkku na ñu fexe ba Afrique am toogu ca mbootaay ga ñuy wax G20 laas yéen a kaay na ko moom kay fexe na ba kàddu Afrique moom dégg nañ ko alerte yéen kaay ne faa leen di tënkal la fa Macky Sall wax wàllu énergie wàllu kaaraange wàllu climat bi ak wàllu terrorisme lii la fa wax l'évidence yéen a kaay ne kàddu Afrique la nag pour muy leer ci les si ko yéen a kaay njiitere Macky Sall ne réewu Afrique yi fañ leen a yàgg a fa jot nag ñu soppi doxali ak yoon ñu war a jaar mën a suqaliku suufu Afrique bëri na ay koom am nañ ay ndaw yu jàmbaare le quotidien yéen kaay ne Biden njiiti réew ba Amérique moo waroon a wax place jox ko Afrique Sénégal Macky nekk ñaareel bu yëkkati kaddu te ñun ñoo war a nekk juróom-ñaareelu kilifa bu yëkkati kaddu direct news ne Macky kay fa leen wax fukki dëggam ak juróom-ñaar leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne njiitëram makki sàll moomu bi mu demee Amérique New York ay sénégalais moodu moodu fa ñoo dajaloo di ko yóoxoo naan ko wuuwuu yóoxu ya wuuwu ja takkarnaase naan Macky Sall dictateur la troisième mandat kenn du ko am ci réew ma fa ñoo ñaawlu doxalinam ca kanam takk deru tubaab ya waaye sénégalais yooyu doon ñaxtu kenn jàpput leen ndax Amérique am liberté moo tax ñaalam ya fa ñoo am lu leen naqari ci yuuxu yéen doon yuuxu Macky te mënuñ ci dara 24 heures yéene kaay ne lu ji njaaga nag ka ñuy wax Ousmane Tunkara ak ñam àndal ñoo jiite woon yuuxu yu métti yéen doon yuuxu démb Macky ñaawlu doxalinam ca New York kaay bi ne Macky nag fa mel ni image xar-xaramam bitim réew fi mu ni fa ñaaw ndax tubaab yépp gis nañ na Macky askanu Sénégal ña ca gën a bëri fañ ko wan ginnaaw ñaawlu doxalinam yéene kaay bi nag critique yéen a kaay moom du ñu xamal ne assemblée nationale ñàkkante moo fa amaat guerre ca ba ñuy taxawal commission assemblée nationale ba vox populi na guerre du ko gën a métti é xiiroo ba daal ñàkkante ba ba léegi dañu gudd nekke gars fa ñoo foogoon na jeex na waaye démb député yi wane waat nañ seen bopp blocage moo fa am neuf heures de temps yoo xam fañ ko amat ci retard ngir fal ña war a jiite commission ya mujj gi daal quatorze commission ya rectifié léegi député benn bokk yaakaar ñoom i tamit fa ñoo bañoon ne duñ seetaan député Yewi jël commission yoo xam ne fa am solo lool député Yewi na leen hëy fa di def ni ñu defoon kerek bi ñu taxawal bureau assemblée yéen fa ngeen di jël poste bu njëkk 1 ba 7 su ko defee ñun ñu commencé 8 ba 14 jàmm na ñooy député benn yi ne leen fa bañ ndax su am na ay commission yoo xam ne ma nga ca 10 ak 11 ak 9 yooyu fa am solo lii moo waral xëccoo lépp ngir wane seen ak njàppale ci Alphonse Sambou xam nga mooy député àndandoon Macky Sall yi di ko attaqué ci wàllu xeet ak Casamance ak robel yaag te loolu fa ñaaw yéene bi ne démb tamit Mimi demutoon assemblée nationale kenn gisut ko fa naka noonu tamit Barthélemy Diaz bokkutoon ci wote yi le mandat yéene na ko voilà Barthélemy Diaz moomu nag tay la tay de tay jii lay dem tribunal ngir ñu xam ndax fañ koy bàyyi setal ko wecc wala boog fañ koy tëj kaso ci mbiru faatug Njaga Juuf ba la amoon atam la xam ca benn bokk yaakaar jamono na leen xée <laughs> du yomb de ndax askanu ndakaaru moom fa ñoo wan Macky Sall ginnaaw ak ñim Amadou Ba am na soxla de keneen ku am soxla mooy Cheikh Oumar Anne bi ko Macky falee ministre éducation ba léegi Sénégal yu bëri fañ koo ñaawlu naan xamu dara déggul sax français phrase bu jub sujet verbe complément mënu ko wax ba pare bëgg jiite njàng njàngale te yow xamoo dara léegi nag ay farandooram fa ñoo jóg taxaw di tontu mboolem ko attaqué Cheikh Oumar Anne ci l'évidence yéene kaay xam nga lu wax ne neen Cheikh Oumar moom fay dox yoonam ci seen i jafe-jafe lijjanti ko mooy gouvernement bu bees bi ba tax l'observateur na dossier bu njëkk bu mag bii xaar Amadou Ba gouvernement bu bees bi mooy dund na askan wi dund gu cher gi ñu faxe nuñ ko wàññee Mamadou Lamine Diallo tekki ci 24 heures yéen a kaay ne yéen foog ngeen ne Amadou Ba mën naa saafara jafe-jafe sénégalais yi dund gu cher gi ñoom seen ah yéen loolu ku leen ko wax da ngeen ko gëm la wara journal ne ah en tout cas fa xam ay dossiers yu tàng jir yu ne këtt na jonn dafañ ko war a lijjanti ginnaaw fal nañ leen ba pare léegi nañ jublu ci liggéey bi ba wàññi njëgu dund gu cher gi fexe ba ndaw ñu am xëy fexe ba mbënd mi dootu dootu fi amati ba pare ñoŋal wàllu mbay mi lii moo leen di xaar nañ gaaw lijjanti ko laneen lu Macky Sall war a lijjanti mooy geraw bu takkarnaase bi am jamono ji ci réewum Sénégal réew mi presque foo laal féppay métti ñëpp a ngi ñaxtu ak geraw yow seetal docteur yi fi mu toll ni fa ñoo geraw ñetti fan ñu ne déetawaay ñiy liggéeyee ci maire yi état civil ñoom seen fa ñoo geraw léegi nag secteur primaire bi ñoom it fa ñoo geraw liggéeykat ya nekk ca ministère bi yor wàllu mi ak napp gi ñetti fan lañ geraw ndax ñoom ñëpp fa ñoo ay jafe-jafe bokk na ci wàllu indemnité xaalis a de boo moytu tamit këru roppalaan yi avion yi danañ am jafe-jafe ngir naaw dugg Sénégal wala ñu génn fi nay leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy accident yi tamit bari na ci réew mi de ñiy faatu ci kaw tali bi ba tax réew mi yéen a kaay na faay laajte camion yi nga xam ne fa ñu nit ñi kan moo leen mën a feree ne arrêté leen ngir yàlla l'observateur na ko faay dëggal li nga wax xab camion boo xam ne fa dof maanaam fa saaraar di fararari a kaay na accident yi dee nañ ci fukki fan ci ay accident fii Sénégal loolu fa ñaaw leneen lu ñaaw ba yegg ca lool mooy benn kilifa gu mag ci état bu Sénégal doomam ak rakkam fa ñoo sàcc ñetti téeméeri million ak juróom benn fukk ci benn société ñu jàpp leen waaye biñ leen jàppee kilifa yi fa ñoo mës-mësal yëf nëbbu ko pour bu ko kenn yëg am na sax député benn bokk yaakaar boo xam ne tudd nañ ko ci yëf la rawee yéene kaay ne ànd ak li ñu def ni garaawee waaye taxul ñu tëj leen leen a téye bàyyi leen ñu dem ñibbi ndax nga ne nun lay doxee kumba xam day kumba xamul day li baaxut leneen lu baaxut ba tey ci wàllu sàcc libération moo ñu ko wax un milliard yu jege ñetti téeméeri million moom lañ détourné ca banque agricole xale bu jigéen bañ détourné nag wala moo détourné boppam les si ko yéen a kaay moo ñu ko xamal ah. yaaw seetal xale bu jigéen bi fukki at ak ñeent la am fa fàq daw dem dëkk faram ñu mel ni jëkkër ak jabar di def lu leen neex ak lu leen saf ci lu bon te far wa nag fukki at la am ak juróom benn yëf yaa nga amee ca diiwaanu Pikine Dakaaru waa ma ne ah man de xale yi jigéen jaaxal nañ ma quatorze ans ngay fàq di fekk sa far dëkk moom ni jëkkër ak jabar ana waw bët ana ñàkk kilifa faa jëlee la ñàkk diine boole ci capable